mbokk yi kàddu yi rek waroon na tax ñu tas assemblée nationale tasum assemblée nationale bi président Bassirou Diomaye Diakhar fay def le 12 septembre ndi gën i ñu bari am nañ ci mbégte kontaan loolu ndax nag ay puupa kese lañ fa dajale woon ñoom sax bëgguñu liggéey ak président ndax tàllal na leen loxo ay yooni yoon ngir rek ñu jëmal kanam réewum Sénégal ñoom ñu lànk bañ Coura Macky ay Farba Ngom ak ay Abdou Bara Dolly ñooñee nga xam ne jànguñu te xamuñu dara nekk fa comme ay cinéma théâtre ñoom daal defe naa waa di waroon na leen jël mbokk yi ñu teewlu kàddu yi dellu siwaat fii ci seen seen préférée seen njëriñ TV faram fàcceel leen actualité bi. Guy Marius Sagna nee na bu Sonko ñëwee dañ koy lekk duñ ko lekk dañ koy fiiriir dañ koy dogo dogotee. dafa ñaaw rek.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 je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. discours bu gatt bu am solo bu riche bo xamni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal nako ko ni gi le 12 septembre tasna na assemblée nationale tasar waye nak te ciow jibul kaddu yi gatt na lol te am solo waye wax na ci top gi ñu wara a ñi nga xamantene yaroon nañu alalu rew mi muy koom ñu war leen càmbar xool ba xam ñu yàq ci yàq yu metti ne na waaye kenn ku ci nekk des na la càmbar xool yàq yi fa mu toll ak na mu mel ñu daal di la koy daan teg la ko loolu nag askan bi loolu lañ leen fale woon moo tax xel dal na di sur assemblée nationale nag doonu lu bett kenn ndax xamoon nañ foofu la ñuy tàllal nañ leen loxo ay yoon yoon moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye woo leen ci njekk ak teraanga woo leen ci liggéey waaye ñoom daal dañoo gàntal bañ lànk jaxase ndax xamoon nañu amul amatuñu benn question boo xam ne wala sax benn kàddu ci réew mi ndax réew mépp leen goqi amul kenn ku leen bëggati waa Benno Bokk Tas Yaakaar waa Benno Bokk yàqal askanu Sénégal gi yëpp rey seeni ndaw waaye ñenn ñi tëj leen ñoom waa APR dañu war a xam ne dañoo war a gëm yàlla def ni seen chef bee nga xamante ne ma nga daw Maroc làqatu xam la koy fekk la mu def xam na ko de waaye Mame Mbaye Niang itam Ismaïla Madior Fall ñooñee ñëpp kenn du leen fàtte ba ci Antoine Félix Diome bi nga xamante ne moo ji ñoo ne waa Pastef ci boppam ñoo daal di taal bus boobee ca yaax ba am ñu ca faatu te dara du ci dëgg loole lépp dafay bokk sax ci enquête yi ñu war a wéyal enquête yi nag ba xam sax kan moo nekkoon ci ginaaw Adji Sarr donte ñu bari nee nañ Mamour jàlloo waaye ñi commandité mbir mi ñu ko def ba ñu bari faatu ci ñooñu ñëpp dañ leen war a teg loxo justice dafa war a am ci réewum Sénégal baalaate loolu moom xalaatuñ ko sax ndax it nag Ousmane Sonko la ma wax nee na moom lañ ko def ci jëmmam mën na ko baal mais li nga xam ne askan bi ñoo ko moom kenn du ko baal. kenn du leen baal ndax nag ñoom ba ñu jekkoo ñu jox leen doole ngir rek ñu wéyal yor réewum Sénégal ba sénégalais bu nekk gis sa bopp ci réewum Sénégal defuñu ko dañoo wéyal di indi ay jafe-jafe ba nit ñi ci boppam ñu ci bari faatu nañ ci quatre-vingts personnes ay martyrs lañu xale yu tuuti yoo xam ne juddooguñu ñooñu ñëpp faat nañ leen ci ay caaxaan ci bëggaat toog ci réewum Sénégal rek muy anarchie ak doole crasse bi Macky Sall amee woon fukki at ñaar yi mu yoroon réewum Sénégal sàcc suñu or suñu zircon suñu pétrole mu tay la lépp daa di dem toog ca Maroc bañ a ñëwaat ci réewum Sénégal xam li ko fiy fekk waaye ñu jote nekk ci biir Sénégal ak ku mu bon doon te bokkoon ci régime bi te bokkoon ci acte yi ñi nga xamante ne dañ ko doon commandé ngir rek mm, duur askan bi rey leen ñoom ñëpp kenn waru ci génn ci réew mi waaye ñoom ñëpp dañoo war a mujjee ndungu sin maanaam rëbës googee nga xam ne saa su nekk ñu fa daan dugal ay patriote waa Pastef ñi nga xam ne bëggoon seen réew moo taxoon ñu génn di manifester ak di xool naka la ñuy def Sénégal ñu mën a am ñun ñëpp benn gis-gis waaye loole ci boppam Macky Sall ak ñamu mu àndaloon ci ndiggal kii nga xamante ne moo nekkoon général Moussa Fall gis nañ taxawaayam ak. yàgg ñoo ñu ñëpp ci boppam dañoo war a rendre compte ak fu nu mën a nekk dañ leen war a tàllal ba ñu ne ñay ba ñu xam ne ñoom ci boppam moomu ñu Sénégal moomu askan bi ba tax na sàkkuñu leen ba lii ñu leen def ci ay torture ci faagaagal leen ci duma leen ci tëj leen ci toroxal leen digg bëccëgu Sénégal ñëpp di ci teg seen bët dañ cee war a am ay preuve yu leer ginnaaw bu enquête defee liggéeyam ñu xam kan ak naka kan moo yónni kan moo dóor kan moo tax lan moo taxoon ni tamit loolu lépp sénégal yi ay question loo xam ne samp nañ ko kii di Ousmane Sonko di premier ministre ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir ñu indi ñu ci ay leeral yu leer te wóor.